gën a ñaaxaat xale yi mm-hmm. du ma noppi di leen ko wax mm-hmm. saa yu ma yoree micro bi bu ma nuyoo waa làmb ji ba pare mm-hmm. dinaa joxe leçon de morale boo xam ne pour supporters yi la bii bii ñu président de la république defal ah euh, Senghor Bokk amoon na yéenam antuwul Abdou Diouf amoon na yéenam antuwul Ablaye Wade amoon na yéenam antuwul tey ci nguurug Macky Sall la amee arène nationale tey kay ma wax la foofu xale yi bëre dimanche loolu xare la woon de foofu xale yi bëri dimanche xare ba ca Pikine boo ko déggee foofu la woon le 8 février 1834 Matar si la xare Diop Serigne Ndakaaru Ngoné Mbengue yaay jàll foofu la daanu. maam mi Ngañ Jaañ foofu la daanu mais géwéli Sénégal yëpp sama maam rek a fa daanu maam ma Njaay Penda Joojo parce que Matar si la xare Diop dafa daanu ne sama maam kaay mu ñëw mu ne ko demal ci dem ne leen daanu naa mu ne ko man boo lëggee say doom ak say sët am way samay doom ak samay set dañoo am woy mag ñi dañoo bëggoon woy ah yow foo jëm yóbbu ma ñooy bokk lekk boo waree waral ma may dem di annoncé set daanu ñu dóor ko balu bopp mu daanu ci wetam ñoom ñaar lañu sul fii ci jumaa ci cëriñ man fii laa juddoo à set fii laa màggee du ma kamoon taxoon fii laa juddoo fii laa màggee kon lu fi xew xam naa ko diggante bi ma juddoog léegi lu fi xew xam naa ko na xale yi indi jàmm ak salaam Sénégal boo déggee ñu naan réewum teraanga la du lekk ak naan lekk ak naan fépp la am mais jàmm jën lay won sourire bañ lay won accueillir bañ lay accueillir fañ lay teg moo tax ñu ne Sénégal réewum teraanga la yàlla na yàlla defal jàmm. jërëjëf waay euh, ndeysaan euh, père Ibou bu Ndiaye euh, Ndiokho Baye ndeysaan wax ñu nag la nga xam ni moom moo di histoire alors di leen fàttali it ni Public SN incha allah. dañuy dalal yàggatul dara euh, père Ibou Ndiaye Ndiokhobaye ah dina fi waajal nag ay émission yu doy yoo xam ni euh, na ngeen ko na ngeen ko xaar xam ngeen ni moom émission dina dina dina am buzz ba noppi dina ala dawme parce que daf ci boole histoire def ci boole démb àndaale ci la nga xam ni moom moo di tey man en tout cas Abdoulaye Eva amoon na mbégte lool dalal la ci entretien bi nga xam ni euh, amal nañ ko ci wàccaayu combat bi war am dimanche entre Modou ak ki nga xam ni moom moo di Ama. Euh, donc nous ngeen ñu euh, continuer de suivre si euh, Public SN Public TV Public FM sur Twitter Instagram sur Facebook également donc on se donne rendez-vous inchallah dans une autre émission d'entretien avec un autre invité bye bye